ak mag ji ba raq ji Baye Mor Sall nekk ci yëmbal di ay téer nuyu nañ tamit Ndiaye et ay menuisier matériel ñoxo Baye ñoom Gora Aziz ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte ak contentement bu mag waaye di gërëm bu baax nag ci suñu papa Alaaji Mamadou Diayité ak Ajaratu Ramou ñu nga ca Banjul ñu leen di sant di leen gërëm bu baax waaye Oumy Ndiaye ca Londres Wande Ndiaye ca Londres nuyu nañ ko ak waa euh, Gabon yëpp Mali ñu ngi leen di nuyu ak fépp foo xam ne Sénégal ngi fa ba ca Angola Abdou Sow suñu xarit la ma nga tamit euh, euh, ñi nga xam ne nag duñu tàyyi di ñu bàyyi xel ku ci mel ne Cheikh Tidiane Ndiaye ak papam père Momar Seck Ndiaye ñu ngi koy nuyu di wax tamit une fois encore joyeux anniversaire à Mado nuyu nañ ko bu baax de la part de El Hadj Abou Bilal bi part dootul Fifi Kouthia la ñuy wax tamit euh, Eva ñu ngi koy nuyu Eva Thiam ñoom Maman Fall ñoom Sali ñoom Fall ñoom Amle Ngala Samb ñu ko koy wooyee Abbas ñoom Suzanne samay xar lañu Awa Taga li yaayu Samba li ak Fatima li monsieur monsieur Koulibaly ñu koy tamit maam Fatim ñu naan ko madame Coulibaly di nuyu tamit suñu yaay suñu maam ñu naan ko maam Tabara Si nekk ca Bel fan bu gudd nañ koy ñaanal nuyu nañ tamit Fat Ba la grande dame de HLM euh, Grand Yoff ak doomam bébé Gànna nuyu nañu Awa Dieng ña nga ca HLM ñu koy nuyu kooku nag du tey di ñu conseiller ci lu baax moom Awa Fall yàlla na ko yàlla defal jàmm nuyu nañ tamit Fat Jiba nekk foofu ca euh, Cité Fadia suñu xarit la di am mbégte ak contentement bu mag Pape Diop euh, taximan chéri Khady Biaye nekk ca unité 2 Parcelles ñoom Vieux Ndiaye ca Pikine Ecotaf xaritu Xaadim portable ñu ngi koy nuyu maire Ami Wan cité avion nuyu nañ ko Saane Ndaw nekk ca UCAD ñoom Dibo ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte ak contentement Babacar Ndaw ca États-Unis Fama Niang ñoom Fama Ndiaye ca États-Unis rek nuyu nañ Koumba Ndiaye ak ki nga xam ne mooy Souadou Ndiaye ca Cincinnati Ohio ñu nuyu tamit euh, suñu benn xarit bu jigéen bu ñu naan euh, Poumera euh, Poumera Kayta di benn euh, jigéen boo xam ne mu nga foofu ca Washington kon nag mbokk yi dañuy euh, seeti ki nga xam ne mooy El Hadji Ousseynou Diouf ca téléphone ba euh, defe naa ne waa Régie ñu ngi jokkook ak moom bu fekkee ne jàppandi ñu daal di koy woo El Hadji allo El Hadji. allo allo. oui El Hadji Diouf. allo oui bien yaa ngi ci jàmm. oui sa naatandoo Sénégalais yi dañuy fubal ak Côte d'Ivoire samedi. way dëgg la. Ah, te yaakaar naa ne yow euh, doomu ndar nga. way dëgg la dëgg la. te nee nañu ceeb bu nii nee bu fekkee ne jour da koy euh, lekk di daw. mën naa indi xërñe ñi. way dëgg la dëgg la. te xale yaa ngi dem ba Côte d'Ivoire ndax yow da nga la doon conseillé ñu lekk ci atike bi war ñu yóbbaale ku mun togg ceeb te diwlin gi bañ a bëri. way dëgg la je crois que ni bu ma sañoon. ñu yóbbu leen koo xam ni bon dawlin bi du bëri. ah du bëri. waaye war a ñu toggal leen ay yooyu yooyu yi nga tudd léegi xaw ma ak yi nga wax xaw ma. <laughs> waaye parce que yooyu je ni boo ko lekkee bon dawlin bi du bëri fii di nga mën a def sa képp lay kattan pour bégal bépp Sénégal. très bien. parce que dañu am match boo xam ni il fallait que ñu door. yow ma ne euh, El Hadj yow tey euh, ci match boobu nga xam ne nag danga ko nar a toog seetaan nan nga nar a yëgee bu xale yi demee ba jege camp yi romb bal bi affaire yi jaxasoo ndax sa tànk dana xasan war a du xasan waaye incha allah bu soobee sëñ Touba dina ma fekk Londres. Mhm, dina la fekk Londres. incha allah bu soobee sëñ Touba dina ma fekk Londres. Euh, ambassade Côte d'Ivoire. ah euh, euh, heure bu gaa yi xàccee dem bay dugal may njëkk a dugal bal bi. ah yaay njëkk dugal bal bi. heure bu gaa yi xàccee dem bay dugal. waaw incha allah may njëkk dugal bal bi parce que boobaa sama tànk day xasan. comprendre naa fi ngay waxee kon El Hadj Diouf yow dañ lay yebal ca ambassade Côte d'Ivoire ba nekk ca Londres nga jàkkaarloog ambassade ba yor sa bal saa yu xale yi jege yi nga dóor mu dugg. incha allah bu soobee sëñ Tuubaa heure bu ñu jegee bal maa ngi ci ambassade bi nekk Londres bu Côte d'Ivoire heure bu gars yi jàkkaarloo bal bi maa koy njëkk dugal. waaw yow El Hadj Diouf tey bés boo jàkkaarloog euh, euh, tey yow ñaata ngay ngay joxe kon euh, score ñaata ngay joxe Sénégal 2 lay am wala 3 wala 1 sa gis-gis ci match bi. incha allah bu soobee sëñ Tuubaa Sénégal 2-0 lay door. 2-0 lay door. incha allah tey oui. Euh, lii lii est-ce que dina daw sa yaram bu fekkee ne dina daw sa yaram nga wax ñu ballon récupéré par Fadiga Fadiga qui donne à El Hadj Diouf El Hadj Diouf qui contrôle pour Fadiga Fadiga El Hadj Diouf El Hadj ah. oui oui dëgg la dëgg la yooyu yooyu boo ko dee wax sax sama yaram day daw. Hmm. du ma def lu dul ñaanal xale yi nag xale yi ñu comme ni ñu doon tuddee El Hadj Diouf Fadiga Henri Camara ñu tuddee leen ko ñoom. ñu tuddee leen ko. oui ñoom incha allah bu ma sañoon ñu àgg foo xam ne ñun àggaguñ fa. Euh, euh, mais mais mais El ndax dàll bu camembert dina tax bii dugg war a dàll da warul camembert. dàll bu camembert bii du dugg. bii dugg. bii du dugg dàll warut a kon dàll bu tànk bu buuju nag am ay koor. ndax dina dugal bii. <laughs> tànk Kouthia tànk bu buuju xam nga ni du embarqué. Euh, nu mu tuddati poqutaan. poqutaan bu buuju du embarqué. <laughs> poqutaan. loolu. jërëjëf El Hadj ñu ngi lay gërëm di sant. di la euh, ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram kon dégg ngeen ko El Hadj Diouf nee na tànk bu foqa euh, bu fekkee ne dafa camembert war a mu forox bal bu du dugg kon lion yi ñu ngi ñaan ñi nga xam ne nag ñoo ci euh, ànd ak ñoom nañ leen xool bu baax sang seen tànk yi raxas ko <laughs> ndax bu foroxee <laughs> dégg naa du dugg kon na gën a set pour mën a dugg loolu nag nekkoon participation El Hadj Diouf bi nga xam ne nag joueur international la ci li nga xam ne moom mooy yéenam équipe nationale gagné à 0 ñu ciy bégal képp koo xam ne nag wax dëgg yàlla supporter nga waaye may wax tamit man message bi nga xam ne moom laa gis en tant que El Hadj Abou Bilal di euh, euh, euh, borom xam-xam jëlee ko ci alxatami di mbokk ci ki nga xam ne mooy Batar Batar ak Batar Buut li may gis daal mooy Sénégal dana am benn bal ci ci deuxième mi-temps bi te loolu incha allah bu amee dañu bëgg ñëpp génn ñu daal dee dem nag ci plage yi nga xam ne mooy géej gi nekk ci kër yi maanaam mbënn mi am na ay géej yoo xam ne dafa nekk ci kër yi ñu dem foofa naan ca ndox mi génn jàmbaajoo Sénégal jëm kanam tonton mag may ñu benn clip ñu daal dee dellu si jëli Drogba bi nga xam ne moom ci boppam danañ jël ay kàddoom directement ci téléphone bi ba El Hadj Diouf waxee ancien joueur ki nga xam ne mooy astafurlaa El Hadj Diouf joueur ba tey Drogba wax ñoo fan lay jaay parce que am na ñu ne gis nañ Drogba côté yëmbal ci benn paa muy sango muy dorog bàyyi <laughs> ma clip pour dara baax